jël huissier bi jox ko li nga xam ne moom la déposé conseil constitutionnel jox ko rapport bi nga xam ne moom la ñu conseil constitutionnel jox huissier bi gis ne effectivement conseil constitutionnel li mu sukkandikoo pour saytu Abdourahmane Diouf baaxul et que conseil constitutionnel ci machine bi ñoom ñoo juum léegi nag dëkk boo xam ne moo am démocratie wax dëgg yàlla boo juumee da ngay nangu ne juum na man li may demandé mooy delloowaat naa leen clé boo xam ne 18401 parrain moo ci nekk yoo xam amul dara lu ci mucc ayib man nangul sama bop nangul ko sénégalais yépp né biñu défé contrôle amna ci lu mat 2000 doublons externes sama responsabilité la sama faute la nangu naa ko lu ci mat 200 erreurs matérielles sama responsabilité sama faute la nangu naa li nga xamné nak moy responsabilité conseil constitutionnel te bu ko ci dindé mag récupérer 6332 parrains ne conseil constitutionnel am humilité xamné ci démocratie lañ nek ci élection bu am solo lañ nek mu reconnaître erreur am ci bu ko ci candidat Abdourahmane Diouf bu dañ koy conseil constitutionnel pour terminer moy gis nañ décision bi nga le 12 janvier bi passé dañu ñun dañu rek ñun ñëpp ñu ñu candidat yi nga clé nous ñu jël ñëpp yëpp irrecevable jël candidat yi nga comme sama genre dem deuxième tour ñu né irrecevable may conseil constitutionnel loo xam ne ñoom xam nañ ko candidature du candidature collective ay fukki nit dajaloo ñu ne dañuy doon candidat ku nekk da nga am sa candidature ku nekk bu dee éliminé nañ la d'accord ci dafa am lu ñu la tooñee donc man li ñu ma tooñee bokkul ak li ñu tooñee Moussa bokkul ak lu ñu tooñee Fatou ma leen di ñaan bu ñu ñu jël dëxëñ ñu ci benn décision yàkkamti nañu bokk leen te liiruñu li nga xam ne moom lañ leen jox man li ma déposé tey c'est scientifique et dama bëgg sénégalais pour l'histoire devant la nation et devant les hommes li nga que la ma conseil constitutionnel saytulee que vous erreur am la demandé c'est ñu nous clé bi je leen ko ñu ko buñ ko dinañ Abdourahmane Diouf bokk na candidat yi nga exprimer solidarité ak candidat yi nga même situation la pour des raisons de procédure de justice euh, de démocratie c'est ne ku pas déposer ce recours individuel nous ñii dañu leen gàjj ñii dañu leen xoos ni dañu leen bëkk ñu daanu ñun ñëpp bokk problème Mais conseil constitutionnel jël cas mu motiver ko wax lan ne candidat wala mu jox la dëgg la liste